C'est ma nièce de jóge Sénégal nous nak ak man donc euh, ñun euh, j'avais introduit en fait au bout d'un certain temps j'avais introduit un dossier de demande euh, de régularisation voilà donc comme xaritam bobu mom en fait dañuy faral di waxtan ak euh, il lui a parlé d'une personne bo xamné mom ci en fait Jotna am ak mom contact euh, pour euh, euh, cette, cette affaire-là de papier. Voilà, donc Monaco, parce que en fait, Monaco, en fait, avec moi, ça va aller très vite. C'est une personne, bon, ramener d'où ça, xaritam bi mais <clears throat> bi ma sama nièce expliqué dama en fait euh, je suis un peu sceptique mais euh, euh,

mu de toute façon et puis c'était euh, c'était une chose légale hein. dans la légalité mu ne il travaille en fait avec euh, euh, des partisans socialistes un petit peu militant socialiste là que de la Noé sa secrétaire et tout ça ils sont en contact permanent et tout ça donc en fait mon papier mon bouquet de ce sera en fait euh, euh, ci fan euh, ci fan parrainage vu qu'en en fait une loi en fait pour les travailleurs sans papier ni déclarer son impôt qui légalement di légalement mais amuñu papier une lañ seen patron et di faral di pour nous régulariser donc man ma ne ah, parce que parrainage en général ça se passe comme ça euh, mu daal may non les lois enfin man encore ko wax naka bon je veux bien euh, loi mën nañ ko contourner mais de manière légale. parce que moom daf la waxoon ni dafa am ay. Euh, ay élus socialistes. élus socialistes voilà. nga xam ne ñoo war a a voilà. donc man bi ma ko waxee loolu mu daan ne ma waaw ko contourner ak yooyu man naka doy mais bon bon comme non la ay ca enfin de toute façon nous en fait ça nous coûte rien. Les gens qui ont may que euh, euh, le euh, pour dossier bi en fait c'est 620 euros ouais, dans les 620 euros. Madame 400 000 CFA. 400 000 CFA mais comme mon en fait sama jarbaat bi sama un bi daf ko neex daf ko gis rek vraiment bëgg ko il a fait son affaire. Il n'y il a pas de souci manam Nobel commencé na dugg digganteem ak sa jarbaat bi. sama jar moom nopp na sama jarbaat bi mais sama jarbaat bi moom réticente comme elle est. Mhm. très méfiante. Mhm. donc euh, moom bi mu demee sax sama jarbaat dafa ne kii daal dafa bëri wax. Mhm. kii daal man affaire am doy ma man ak ah man daal man franchement enfin ni mu waxee euh, voilà quoi man enfin c'est pas c'est pas que de la naïveté mais euh, dama am respect ci nit man boo ñëwee comme du ma fen fen du ma ko def luma mën dama koy wax luma mënul duma ko wax bu may def damay def luma ma mën loolu tax ma jàppee ko sama bopp bi ma waxee loolu franchement ma ne ko ah man on va essayer y a pas de souci donc mu daal di dem deux jours après euh, mu daal di may mu laaj sama ñees bi après ma sama ñees bi wax ne daf ko laaj sama numéro téléphone mu ne ko loo koy doyee mu ne ko ah euh, jox ma ko rek bon kooku tam jox le numéro de téléphone mais il s'est éclipsé pour Hagman. ak je crois euh, vraiment euh, euh, non avant Bobo, avant Bobo. excusez-moi avant Bobo, dafa dafa c'est à l'intervalle d'une semaine. Hein. Mm-hmm mu daal dina dafa bëggoon daal euh, waxtaan ak sama jëkkër léegi mu ne woo na papaam son le frère à son papa ndax papaam euh, dundatul woo na son son papa euh, le frère à son papa ba waxtaan ak moom ak sa sœur sa sœur bu tudd Maam fay buy liggéeyee banque donc ba Maam fay sax toutes les dix secondes mu woo ko naan ko alors fu ngeen toll ak yooyu ma ne ko ok mu daal di ma wax ak Odile Odile na ma kii daal moom doyuma qui doyuma dafa bari wax manako ay audil yow nga rek ku fi nga donc manako ne ça coûte rien correct. de toute façon on va l'accueillir ak mu dal di ma consultant il travaille pour Kadhafi et tout ça enfin dans les pays arabes daal dañ koy ko dañ koy woo toujours euh, pour muy dem di leen defar business ak ok donc euh, ñu nekk reer nañ ba pare daal di kii mu commencé nag di wax daal de moom daal nit ko boole woon ak Enfin, li ko indi woon fin dafa am luko indi won moy affaire papier yoyu mais bi mu gisee Odile dafa yalla dafa def mom dal daf ko bëgg te mom amu caaxaan te bu nous affaire bi nu mu rek. nu mu ngeen ñu ok donc euh, ñu après sama intervenir bi mu waxé ba paré sama intervenir né ko ah, vraiment euh, xalé bu bax la sama bi xalé bu vous la mi ngi euh déggal nañu ba euh, amuñu dara lu ñu demul dikul boko am nga mom mu nañu mom tamit

léegi man buma ko joxé 620 cent vingt euros moom li ci dess mom dina ko topato manam bo amé sa mbokk bo xamné mu ngi Sénégal. mu ngi Sénégal ko indi fi ci France. mu ngi noonu. Mhm. légui man en fait dama yox fofu samay jaxbat yo xamné sama yaay mo len yax sen papa gañu sen yaay gañu donc euh, ma daal di leen xalaat bima koy xamal ne ko ba dans cas là dama bëggone nga ñew ñu waxtaan ñu waxtaan ci daal y' a pas de souci comme non la mu and ko dil ñew c'est là que sama ñess bi.

Euh, maa ngi lay gërëm mais y' a pas de souci demain man bon ñëwee dina dinaa jox xaas comme je travaille de nuit bima ma le matin je suis passé à la banque me retirer 620 euros waaye bi ma ñëwee ma woo ko ne ko xaas baa ngi fi mu ñëw. léegi mu ne ma en fait euh, mu demee bi mu jëlee ba dem euh, le lendemain ou le soir le lendemain waaw le lendemain parce que bëccëg la fa le lendemain mu woowaat ma ils ont encore trois places parce que y' a des personnes qui se sont désistées léegi bi mu waxee loolu euh, ma nièce la daal di ne ah dans ce cas là ñu ñu jël frère frère ki ma bëgg indi frère ki ma bëgg indi sama neveu bi ma bëgg indi benen frère am léegi loolu yépp ñu koy ki pour dimbali len dal ñom ñëpp euh ñi nga xamné ay jërim lañu on veut que qui s'en on voulait qu'il s'en sorte ak yoyu léegi bi mu waxé sama benen neveu bi ma ne ko déedéet léegi nan la def parce que dama am sama benen ñees boo xamné master 2 la am té mi ngi fofu nek ci benn boîte ñu koy exploité euh, nek na feu stage pendant plus d'un an donc mané j'ai pensé à elle mu ne ma bobu nak dans ce cas là man dina fay plein pot ma daal ne ko amul problème mu laaj ma 1400 1420 euros yi ma waxon noonu. lolu mu ngi ñew tegu ci kaw. Euh, yeneen 620 yi ma ko jot jox waaw. 1460 comme 1420 léegi ma daal di koy bu ma lolou manaka. amul problème man de toute façon comme ñaar la c'est encore euh, mieux dina mën indi sama ñess ak yoyu légui mu ñëw jël ci xaliss bi di mu jël ci xaliss bi ma jox ko 1400 euros laa ko jox ma na la jox li ci dess ok mu dem. jox ko xaas ba pare kër bi ma ko jox c'était am na ku fa nekkoon sax benn jigéenam bu mu àndaloon bi mu ànd ak jigéenam boobu ñëw naa ba di ko ba koy jox xaas bi mu def ma signe ma laa bàyyi. maanaam bu ko ko jox ci kanamu jigéen boobu bëggul woon ma jox ko ci kanamu. jigéen boobu mbaa ma mën nañ xam turam. Euh, Anta la tudd. Mm-hmm. Anta Ndaw. continue. waaw léegi kooku ba léegi xamul li xew. Mm-hmm. Mm, léegi mu daal ba ma ko joxee ba mu dem. mu daal di may waxaat ne ma beneen deuxième place bi troisième place bi ma na ko ah xanaa ma seet foofu xale yi man woo naa sax sama beneen neveu ba di ko leb xaalis pour indi xale yëpp léegi bi sama neveu bi nemee moom du ko mën donc ce que j'ai fait dama ko ne dama ko ne keneen ki sax dama ko ki doon ki am na ku dencoon xaalisam pour bëgg tukki mais mujj gi mu dugg ci ay affaire élevage ak yooyu bi ma ko waxee euh, mu ne ma en fait euh, man pour le moment

Euh, dama euh, confiance pour mat sëkk là amoon léegi xale boobu di liggéey yonne ma ay mandat moom man jox naa ko 600 euros ak 1000 620 euros ak 1400 euros pour moi man sama côté sama m'a sama ñees ak m'a neveu 600 euros manam mom li mais benen bi dama koy fay plein pot. Oui, 1400. waaw parce que ci 2000 euros. waaw mu nek 2000 et 2000 waaw 2060 euh, ou 2090 euh, xawma ma manam maanaam du dara euh, frais d'hébergement yi la ak frais d'hébergement hôtel ak frais de dossier parce que forum bi da day nek ci trois euh, trois qui euh, lañ ko def pays européen euh, dinañ dem Bruxelles ak du woon Luxembourg am na beneen dëkk bu ma waxoon ak France donc dinañ def trois en fait forum bi dina donne trois étapes donc boo gisee xaalis boobu ñu koy c'est juste pour rek mun assurer couvrir frais yi ak yooyu ok xale bi daal di may def ay mandat Western Union

fofu nak sama xel commencé di tey dafa gis une opportunité pour sama nièce bi pour papier yi naa jox 1000 euros mom sax après dina ma ko remboursé mais légui mom fàtte na néna day liggéey ak socialiste yi fàtte na ñom en fait sen liggéey moy sen enfin li ñu jóg sen leur démarche en ce moment moy di parrainer ñi ñi di dimbali ñi ñi pour ñu am kayit ak yoyu mom fàtte na loolu yëpp mais dafa gis benen opportunité bo xamné man nak ko lebal 1000 euros pour mu meuna dimbali sama nièce bi ma ne ko ah Pape loolu de doy na waax euh, man maa ngi lay jox xaas pour ñu liggéeyanteel nañ def li ba non wax wax ma ko loolu dama ko ne waaw comme dangeen danga ko bëgg a takk c'est fait exprès boobu nag commencé naa dégg ne amul kayit. moom Pape ci moom Pape Faye ci laa commencé nag di comme di am ay écho naan ma amul kayit mais ba léegi na ne ma euh, mu ngi doon sëy ak euh, ki ne doomu jaaxa si ma madamel

Euh, da nga ci gis ay yàqkat ak yooyu donc en fait voilà bi ma waxee 1000 euros yi nag ma ne ah ma ne ko Pape yow da nga bëgg takk Odile da bëgg takk sama ñees bi quand même ah kon kay jarul nga yàkkamti y a pas ak yooyu nañ traité lii ba pare rek mu daal di bàyyi wax boobu message bi ma yónnee di ma laaj xaalis boobu mi ngi fii.